aussi. yow jigéen ah, tamit attaquant normal moo toog nii di wax lan. <laughs> Ah, ma ma woy wala. ah nga xam ne nag ñooy ñooy euh, teel a yeew di di di seetaan petit déj bari nañ ci réew mi. Mhm. Euh, dañu koy dooree rek Serigne ak euh, Pierre Édouard fay bi nga xam ne moo nekk fii ci Walfadjri nekk rédacteur en chef. ni ki samedi bi ñu génn def na mariage bu toj bu am doole. xool leen image baa ngi noonu di ko ah, féliciter encore une fois mariage bu neex ah. ñu ngi fa woon on s'est bien amusé vraiment di ko ñaanal daal lépp lu nga xam mu ngi koy mëbët ci biir euh, sëy bi daal yàlla na ko ko. yàlla na yàlla na barke yàlla na seen njaboot barke. vraiment xool sedd na. mi ngi noonu ku ku ku baax la ko ci. ci souhaiter sa waa ji man man Pierre Edouard euh, je voulais lui dire euh, donc euh, donc di ko bi. Mhm. mariage am bi di ko mhm. féliciter. Mhm. mais lui dire que en direct devant tout le monde que ni je ne suis pas content de toi. parce que man dama yaakaaroon ni sama xarit nga. donc waroon nga ma mën a invité et vous ne m'avez rien dit. et ci mbir mi laa ko dégg. donc man aussi le jour où je me marierai. eh je ne t'inviterai pas yow. <laughs> la du ma la inviter yow Pierre Edouard. Hmm? jour bu may marier ma la inviter ndax sa sa mariage invité woo. bul bul yaakaar ne sama xarit nga. bu ko topp effectivement invité nga say xarit ñi waroon dem dem nañu j'étais pas j'ai pas été tenu au courant xel day fàttu c'est un que j'aime beaucoup mm-hmm. euh, de par son tact et puis sa manière de travailler euh, mais jikko catholique bi rek moom a gën a neex ci moom yàlla na la mm. yàlla sàmm waaye kontaanuma ci yow kontaanuma ci yow parce que man dama yaakaar sama xarit nga te war nga maa invité mm. nee la nag man bés bu may non sa xarit la du ma la ah, bon d'accord xam nga tamit euh, c'est mm-hmm. xam naa fàttali la rek ma ma mm-hmm. da ngaa mhm. fàtte yow. man mm, mbir mee ni mel. waaw non non non non c'est dama ne. waaw léegi yéen boo leen paree seen problème xam nga man xam nga man. Eh, yow tu es ah, mon sama vrai ami nga. yow ko si dama lay wàccee loolu man sama yoon nekku ci parce que xam nga tax sama yoon nekku ci juste rek pour terminer. Mhm. sama yoon nekku ci parce que euh, man man man Pierre Edouard bu fekkoon ni man je n'avais pas d'admiration kon lii sax du ma ko wax ndax dama koy ignorer. Mhm. parce que man bu ma waxul sa wax mooy paalewu ma la. yaa ngi dégg mais moom c'est un monsieur que j'aime beaucoup. et donc li ma invité wul man daf ma naqari. Euh, pour pour pour ñu pour ñu kii doon rek xel xel mooy fattu ñu koy euh, souhaiter rek heureux ménage dañuy euh, Euh, continuer rek directement ak mbirum Bercy Saloum mu mel ni semaine bi la tàngoon euh, jër ci mbirum artist yi ñaari artistes yi nga xam ne mooy Wally Ballago Seck ak euh, Sidi Diop jàppoon même date muy le 11 décembre bi nga xam ne moom la ñu waroon def seen Bercy Saloum fële ca Kaolack kii la di préfet bu Kaolack refusé kii di siidi Diop autorisation moom mu mel ni ba su Wally Seck la accepté tax na sax ñoom ñi nga xam ne ñooy staff yi nga xam ne ñoo nekk féete ci Sidi Diop waa Subatel am loo xam ne maanaam polémique la indi tamit yenn polémique yi nga xam ne mooy euh, ci euh, réseaux sociaux yi ku ne di waxee gauche dem droite tax na ñu ko ak kenn ki nga xam ne mooy euh, jegeñaale ak Sidi Diop muy El Capo jege ko lool xamle na ni autorisation bi ñu déposé woon préfet daf leen xamal ni. dañ ko yéex a déposé mu doon loo xam ne tax na sax ñoom ñi ngi ñi nga xam ne ñoo féetee foofu la ci subatel génn nañ def conférence de presse nit gi samedi bi xam le ni ñoom xuloo soowoo yëkkatiwu leen yenn yi nga xam ne mooy violence yëkkatiwu leen préfet daf leen xamal ni bu ñu ko naree def dafay andi yenn yi nga xam ne mooy trouble euh, au niveau de la région de Kaolack ndax ñaari artistes yu mag nar a tëggee foofu day doon loo xam ne lu lu xaw a yëngal euh, boobule gox la mm-hmm. ñoom it sax euh, doon na ñenn yi nga xam ne nag ñaawlu nañ ko ndax andi nañ ay yenn wax yu sew yooyu nga xam ne daal doy na waar lool waaye teewul it jàppal nañ leen beneen date bu ko defee rek ñu waajandi ko muy ci janvier bi indi na polémique bu mag euh, Fatima ci euh, réseaux sociaux bi. mais Fatima lan mm-hmm. moo lan moo tax euh, préfet bi mu absente bosu kii mm-hmm. bosu waale bañ mm-hmm. bosu sii di xanaa joxe na raison yi tax ñoom waa Subatel xam na ne ñoom la 11 novembre bi passé la ñu déposé seen ah. seen autorisation mu doon loxo def nañ ko un mois avant waaye nag mu mel ni nee nañu jaay doole moo ci am ak yéen ñi doy na waar te indi na polémique yoo xam ne yu mag la. ci ci réew mi non c'est que damay rebondir <coughs> Eh, ban raison la euh, bon bi mu nekk euh, kii lay jox. wax na jox raison. bi nga xam ne joxul euh, lu tax ba joxul ñële. nee na trouble à du du conseil moo amoon lan stade ba. waaw ah, mm-hmm. waaw bon lu foofu foofu foofu tamit dinaa foofu il faut que ma ñaxtu fa un peu. sincèrement stade yi. Mm-hmm. priorité c'est au football. nañu waxante dëgg. def nañu lii seen coow lii kii na tax nañu ba stade bi équipe phare bi dafa waroon recevoir foofu ñu yóbbu ko ba mercredi. xam nga yooyu itam loolu beneen loolu loolu loolu dama doon ubbi beneen parenthèse rek pour rek. ñaxtu loolu les stades. préfet il faut ngeen xam ne stade xaw ma xaw ma kan moo ko jox néew ma préfet bee ko jox néew ma directeur stade bi mais stade c'est fait pour le football mooy priorité bu football amul. wala leneen nañ fa def leen mais mais c'est que nag leneen. Euh, mhm. ci li Milane di wax. Mhm. non man bëggoon naa xam rek rek sincèrement. Mhm. lan moo tax. bu dee kii moo jiitu. waaw loolu la wax ñu jox. maanaam kee moo jiitu ba muy déposé kële déposé gul mu mm-hmm. accepté ba su kële loolu la dafa mujjee ñëw mm-hmm. léegi moom xam na ni instant bi mënul accepté ñaar yi da indi da indi trouble mm-hmm. looloo tax dafa ko pour aar li nga xam ne moom moo di goxam ni noonu bu dee noonu la demee bu dee noonu la demee waaw noonu la ko waxee loolu lañ ko dégg mi ngi noonu la demee wax na dëgg loolu loolu la loolu noonu noonu euh, maanaam ku jiitu moom la ñuy jox léegi nag li tax ba mu indi coow wax nañ ko gëstuwaat. waaw ah. parce que ñee dañoo jàpp ne rek dañoo faral kële. ah faral ak lu mu lu ci mutu doom daal ñoom euh, waa Subatel xam ne nañ ni le 11 novembre la ñu déposé woon seen autorisation mu doon loo xam ne andi woon na polémique ci semaine bi ñu génn waaye jàpp nañ leen beneen date nañu jàpp ci boobu rek fas yéene def nañu daan def rek seen Bercy Saloum ñu woy ba tey ak mbiru euh, Miss Sénégal Fatima Dione coowam jóge amoon na fi nigi weer wi sa mën naa ne jamono yi ñu génn yëpp ci coowam la ñu nekkoon ndax. Euh, Euh, coowal viol ak ñoom comité euh, Miss Sénégal ñu ngi ci guddi gu bër setagul ndax gannaaw viole bi ñu fi nemmeekoo yenn leneen yu yees am ci mbir mi ndax ki la di Mariama Kebe ñu gën ko xam ci Mamiko nekk actrice bokk fële ca Femme Chic mhm. dañu ko euh, Amina Badiane di présidente comité d'organisation bu Miss Sénégal daf ko porté woon plainte ni ki jamono yële ñu génn pour diffamation ak yenn yi nga xam ne maanaam dafa ibbiloon defoon direct ubbil téléphone ñi nga xam ne mooy ñooñu nga xam ne mooy ancien mannequin yi nga xam ne ak miss yi nga xam ne ñoo nekkoon ci euh, euh, Miss Sénégal bokkoon ci ci compétition bi ñuy dugg di def ay témoignages yoo xam ne maanaam dafa gàtt gàkkal deru euh, Euh, comité bi tax na Amina Badiane porté woon ko plainte ni ngi tey di ci alti euh, ci euh, altine bi lay dem wuyu ji fële ca brigade de mœurs loolu nag boobule information mu ngi ko xamle ci compte Facebook am la ko publier jot nañu ko jokkoo jot nañu jokkoo ak moom waaye mbir yi antuwul mbokk yi bu ko defee rek ñu xaarane rek fan la waaneet di mujjee ki gëtam kii mooy miss bi Fatima Ndione yoole woon waaw ah. mhm. hmm. moom la waa xameew femme bi ah. non bi mamiko la ah, kii euh, kii la bokk femme chic bi coow li amee da doon def ay direct di yedd ñi nga xam ne ñooy euh, miis yi di ubbil leen antenne ñuy dugg di wax ñoom li ñu dund ci ci ci ci ci biir euh, li ñu dund ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllum comité mi mi staff beeg yu ni mel ku ne di def say révélation kii diwa ko ëmbal kii dugg na ci liiw ak ministre beeg hmm. ñooñu la loolu la tax nag Amina hmm. Badiane moom porte plainte kii nga xam ne mooy euh, Mamiko moom mi nga xam ne moo bokk ci femme si muy Mariama Kebe porté woon ko plainte ngir euh, maanaam ñamu bàyyi ñuy dugg di gàkkal deru euh, deru uh, comité Miss Sénégal bi mu mm-hmm. ngi noonu bu ko defee rek dañuy xaaraat ne rek fan la waaj nañ ci mu dégg gëtam danañu toppandi information bi Fatima. Mm-hmm. dañuy toppandi information bi léegi ñu ñëw uh, concernant maam maam góor. Uh, maam góor mbirum maam góor lañ koy dooree. ndax mm-hmm. gannaaw Sénégal yëpp ko xëyandoo gis ni gi jeudi bi ñu génn suuf su a xëyee ko ci xëtam bu njëkk. xam ne ni kile di nga xam ne mooy soxnaam nekk ex député bokkit ci benn kurél Euh, daf ko joppandi ci yoon ngir euh, demander ko divorce ku ne xam na ni maam Goor Diazaka mi ngi doon sëy ki nga xam ne mooy euh, Fatou ñu doon ko dàkkantalee sax Fatou Thiam Diazaka daf ko yóbbu ci yoon xam na ne ni buggatu ko sax gis mu doon loo xam ne lu euh, lu xaw a bett sénégalais la ndax yaakaaruñu woon boobu le mbir tax na ñoom ñi nga xam ne moom maam góor ci ab fàttali rek dafa bokk ci euh, dafa nekk candidat ci mairie bu Rufisque euh, Alioune Sow loolu leen indi ab polémique ba ku ne jéem nañu jokkoo ak moom maam góor encore une fois ba tey waaye antuwul waaye ñenn ci suñu ay nataangoor jokkoon nañu ak moom waaye ci la mu xamle mooy maanaam vie privée am la bu ci kenn dugg te ku ko ci laaje it dootu ci waxati noonu la mbir mi demee ah vie privée la. Mhm. loolu moom loolu la am pour jox pour jox ñu. mi ngi noonu loolu loolu la wax te sax moom bi ko waa suuf su à njëkkee woo mhm. dafa weddale yooyu la tuuma waaye ki nga xam ne mooy huissier nekk maître euh, El Hadj Diouf Sarr moo weddi ay waxi maam góor moo tax sax mbir mi demee. Hmm? maanaam li li li bi bi source a xëyee fësal euh, mbirum maam góor ak divorce bi moom ba ba ko waa source a woowee dafa weddi tuuma yi nga xam ne moom la ndaw si teg ci kaw maanaam euh, divorce que ni buggatu ko gis bëggatu la nekk ak moom euh, tàggatoo mi ngi noonu leeralul. Mhm. li tax mbir mi gën a leer nag moom euh, El Hadj Diouf Sarr maître moo génn wax ci mbir mi ne mbir mi noonu la demee te it Fatou yóbbu na ko ci yoon. Mhm. maam góor nag xam na ne ni moom moom mhm. dootu ci demande divorce. parce que dafa demande divorce ba son maam góor bañ mu yóbbu ko ci yoon pour yoon def liggéeyam. da ñaan baat mu bañ. Fatima bu ko defee rek. kon nag kii moom confirmé na ko. Hmm? maître euh, kii. moo ko moo ko confirmé mais bi yenn sit yeeg yu ni euh, génnoon dem euh, contacter maam Góor am na sax ñu mu jot a recevoir di leen defar ab interview maam Góor xam na leen ne mbir mi du ci wax ndax vie privée la te it dafa yor ay njaboot. buggul doomam di màgg di dégg yenn ci ci ay géewam sëy doxoon na seen diggante mais comme yàlla ni la ko tuddee moom mbir mi biram mi ngi noonu loolu def ci voilà voilà loolu ça peut se mhm. Mhm, si si mhm. euh, kon bokk euh, Fatima ñu jeexale ci li nga xam ne moom moo de ñaari ñaari daam yu Gambie mel ni xaalis dafay raxas nit <laughs> est-ce xam ngeen ni nguur dafa neex Aliou Sow bi yow laa koy bàyyee mm. bu ñu xoolee ci euh, ci photo bi rek sëriñ bu baaxee muy ñaari ñi nga xam ne ñooy ay soxna aadama Baro mi ngi noonu muy Fatou Ba ak Sadio Mballo ñu ngi noonu seen photo ancien photo avant ñuy falu ak nañu leeree mu doon loo xam ne non non non non foofu nag may may <laughs> sant yàlla. sant yàlla mu ku ne neexul danga nga cee bokkul. ah waa eh fii nag àddina kaay ma xamal leen nag kenn ñaawul de. ku defaru rafet. loolu moom moom man gëw ma ñeent ak fil ak technologie day dalal xel. non non gëw ma ko kii du kii. non non du moom war ma photo bi bu baax même kanam gi du ñoom. waaw non non non non non non. non non d'accord ma. non non kii non ñii ci kaw. du ñu ñii ci suuf. non gémmiñ yi ci kaw du gémmiñ. voilà waaw non dëgg dëgg non non non. je ne suis pas d'accord dégg ngeen lii. léegi c'était à l'état naturel fii dañu may maquillage ak yooyu transformation kon kii bi mu euh, photo bi non mais kan mooy kii attends ñoom ñoo ko lëndëmal xam nga lii yàgg na temps euh, daamina la yàggul noonu non Aliou non Fatima yéen seen photo ku ko gënoon yaa dix ans melul la woon nit yaa ngi yëf fitna yaa dix ans waaw <laughs> yaa ngi yëf fitna ci ginnaaw eh, man d'accord ma lii kii ñaa ñii. parce que boo xoolee kele waaye kii moom ñii moom la. ñi ñi si kaw nii dañoo am ay bouches yu. ñii ñoom la waaw waaw waaw seen jëm yi moo gën a xool leen bëñ. waaw non non waaw mais ñi dañuy màgg. dañoo màgg yow ba pare ñi dañoo màgg. laa ci gën a métti dañuy cons ci suuf naa ma ñi est-ce que ñoom la. daa <laughs> choqué ñoom la. mais seen gémmiñ ba xool ah, mais mais eh, kurtu xool ñoom la xoolal xoolal rek ñoom la boo xoolee tagal bi eh, da ngay xam ni moom bosam dafa gën a yéeg ndax niveau bi yéeg bon léegi attends attends kii kii Euh, ku xees pett kii. Mm. nekk nii moom mooy moom mooy. mooy borom yu orange moom mooy borom lu orange waaw moom la. nooy fa mu leer. mais coach euh, xanaa. leeral leeral leeral leeral moo ko fasal ah pour mu leer rek ñoom leeral nañ ko nii la demee mais bu jëkkër nekkee euh, boo amee ay moyens mais waxoon sax président. mais coach Sénégal sa jëkkër boo leen avancé sax nga gën a ngeen gën a am alal ci famille bi mais forcément da ndaw si day changé. day changé mais même même bu dul ndaw si même bu léegi xoolaat il y a ans man sa photo yi ma gis fukki at yooyu c'est même pas la peine Fatima moom yow woo dara mais xool nga mel yaa ngi ni yaa ngi ci réew mi eh, eh, xool Fatima yi aussi eh, xam naa ni il y a dix ans en arrière Fatima aussi tekki woon dara xoolaatal photo bi dëgg la ñoom la. ñoom la ñoom la preuve à l'appui. waaw waaw xoolal ba kanam xoolal xoolal ki sol musóor bi ci kaw. c'est ça moo nekk ah, ci suuf xoolal ba kanam xoolal ci suuf moo nekk ci suuf xoolal ba kanam. position bi dafa mel ni ñoom miin nañu ko. ñoom la moom la waaw non non euh, Aliou Sow moom ñoom la ñoom la ñoom la xool naa ko xoolaat ka. ñoom la gémmiñ suuf ñoo gënal tuuti de. ñoom la ñoom la. Aliou Sow gis naa xoolal bu baax nañoo xoolaat ayub baax jàppale jàppale nañu seen borom kër bu baax. waaye ndax euh, mu mel ni réccu wuñ ci dara ndax boo gisee leer gi xaalis a demee nii bu ñëwee ci réew mi sax loolu lañ. ñu nii lañ ñuule woon wala affaire bi <laughs> parce que xam nga aussi non i fois mun nga xeesal non parce que ñii nii baax na dañ dem jóg ñu tamit ñoom parce que dafa am dafa mel ku xeesoon ba pare xaw a maanaam cas bee yow yow comprendre ni xeesal mënul ñuul yi mel ni comme kii mii euh, dañuy falaay falaay jaare jeexal rek waaw bu ko defee rek ba bàyyi wàll ak muy ci réew nguur a demee nii ku ne cortège neexul da nga cee bokkul fa la ñu jaaree tàggatoo mbokk téléspectateurs yi Fatima tàggatoo bu dul tàggoo waaye laata loolu damay souhaiter un joyeux anniversaire ak euh, belle sœur kii euh, goro Matar Ba la euh, coach muy Seynabou Fall di jëkkër jabat ci nga xam ne mooy Ibou Ba di taawu Matar Ba di ko souhaiter un joyeux anniversaire coach souhaiter ma ko sama xarit bi. Matar Ba waaw gorom gorom. Mata Ba ban Nabou Fall. Nabou Fall joyeux anniversaire suñu xarit nga mais xaritu Korsi nga dëgg dëgg. dëgg la xaritam seen goro bi xaritu Korsi la. Mhm, xaritam la ah waaw waaw waaw je le revendique. il dit la vérité. dëgg la même ay xaritam.